waaw bëtt ma rey na golo ga golo ga rey na bëtt ma nii la ko yonent bi def daal def nii sa loxo la wax loolu dégg nga boo ko seetloo dama dal di wëcc damaa tikane loolu pour lan la amul njëriñ yow da ngay waxtaan pour nit ñi jëriñu waxal pour nit ñi jëriñu li ngay wax dee ko contrôler dee ko contrôler parce que nit ñi dañuy bàyyi xel li ngay wax li ngay wax dañ ciy jàpp war na féeg yow mal xiyaam baat boo wax war nga ko mën a waxaat mais oustaz léegi moom maa day taal dañ lay jël rek ne la oustaz nga naan wéy nangam nangam yaa ngi ci dir yanke ya ngi ci alaaji ya ngi ci ñi am xaalis yaa ngi ci ñooñu rek ngay wër bu tukki nga dem loolu boo ko wëree doo doo dem da ngay seet li la sa diine sant nga wax dox loola wax loola ko defee loolu moo lay musal voilà. macha allah mais saa ndax bu loolu amee tey ci dëkk bi ñu seetlu ko même dafa mel ni ba tey euh, wax fi dëgg day metti parce que bu ñu xoolee ci cadre ki nga xamante ni moo di Kouthia. ñuy gis cadre yi nga xamante ni daf ko yëkkati ah bu demee ne euh, weeru koor oustaz bu ne war ngaa bañ animateur toog di la diriger euh, ci nga xamante ne jàngul xamul dañuy ñëwaat sa wax ji. mais wax jooju dafa mel ni moo ko jëlee fi nga xamante ni tey moo di TFM mu nekkoon mu mel ni léegi nit ñi dañuy dafa pare bañ ko ci wax dëgg. waaw Kouthia maa ngi ñaan Youssou Ndour mu jëli ko sama diggante Youssou Ndour maa ngi koy ñaan mu jëli Kouthia suma diggante Kouthia maa ngi koy ñaan mu dem bu ko Youssou jël si parce que li wax dëgg la ñun koy ñun koy buñu bu ñu xaj bi màtt kay nañ ko nangu rek <laughs> xaj bi matti nañ nañ ko nangu man de toog naa fii ba tey ay jigéen toog man muuruñ moo ko ngeen gis. da ngi ko mm, mm. yéen ñëpp a ngeen a ngi toog. Mm-hmm. ay jigéen toog man man muuruñ ma wax leen ko. Mm-hmm. parce que loolu du dara. yow li ngay liggéey loolu la laaj. Mm-hmm. waaye ku caa mu wax dëgg. ne télé yëpp nag laa wax. télé yëpp la da gis koo xam ne. moom moo yor diine ji. ko yorul diine ji di ko dirigé lu ñu ndeyam. luy ndeyam saret kay bu ko fas jiitoo daano xañ na ca ba dënd bu xar nga xar saret fas waru jiitu moo war a jiitu fas fas a war a jiitu mu topp ci euh, seet nit koo xam ne xamul dara mu diriger nga ngay ci kàmb rek la ñuy mujj yow ci kàmb nga jëm moom ci kàmb la jëm waaw ñi koy seetaan duñ dugg ci kàmb parce que ñoom ñu nga seen kër toog waaye yow ci kàmb nga jëm ndax yaay tuub yaay mujj dellu ginnaaw jéggulu lu ko jar nit war na buy wax na wax rek lépp lu mën a doon nga di ko wax na nga ko mën ko baax na de yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon saaba yi ne leen lépp lu ngeen di wax ngeen xool mujj mbir ma su fekkee yiwa nga ca wax leen su ci yiw nekkul baleen fekke yiw nga ca wax leen bu ci yiw nekkul baleen waaye yow nga bëgg bës bëgg siiw bëgg yëkkati ko ah li ko caa wax dëgg la ko caa li wax moom dara nekku ci ñun kay ñoo war a seetaat suñu bopp bam ñu fàttalee sunu bopp dañoo war a seetaat suñu bopp mais ah lii kan mu wax dëgg la ndax kat kii jàngul waruñoo dund kon nañu jox émission bi ñu diri seet suñu bopp waxal suñu bopp wa illaa ñu arrière loolu mooy dëgg ah loolay dëgg di ah moom kay nag wax ji de wax dëgg waxtaan wax dëgg ci la bokk waaye Kouthia moom li wax dëgg la moom maa ngi ñaan na Youssou Ndour nu mu mën a def na jëli Kouthia gis nga wàcc nit baaxul wàcc nit wóorul nit soo amee téeméeri nit kenn rëcc la mënoo fexe ba waxati am naa téeméer juróom-ñeent fukk rek la mm-hmm. juróom-ñeent waaye boo amee téeméer téel wut benn dolli ca wutaat beneen dolli ca nit ku baax duñ ko sàggane nit ku am njëriñ duñ ko sàggane nit ku lay jëriñ bul déglu waxi nit ñi ku caa lii ku caa la dara bu ko déglu yit ku caa bul déglu waxu kenn ne yuusu dem jëli ko ku caa na dem moom ñu bokk liggéey parce que mën nañ ku caa jàmbaar la jàmbaar la ci liggéeyam ku mu toppandoo ngeen ne kii la ku mu toppandoo rek ngeen ne kii la yëre jigéen yëre góor yëre paa yëre xale lu ne lay def ko que am na loo xam nit ki daf ko def ko bàyyi war a bàyyi xel waaye euh, Youssou daan na ko jëli rek koy ñaan sama digganteeg moom a wóllëre yu ñu seq na ko jël ku caa itam li ma koy ñaan ak sunu wóllëre na ko na nangu dara xewul dara xewul e, seytaane yi nag buñ ci duggee du baax mooy yàqkat yi Sénégal dafa bëri seytaane bari ne ko ne onze billahi mina seytaane rajim fekk moom seytaane moom ci boppam seytaane la waaw seytaane bi muslu seytaane la foo ko seytaane kay xanaa <laughs> day day mutu ci waaye seytaan di mutu seytaane te seytaane la eh, du sotti mm-hmm. kon aouzu billahi mina seytaane rajim te yow yàqkat bu mag nga mm. xanaa xamoon ne iblis seytaane ko yàqal mm-hmm. ma uh-huh. iblis seytaane ko yàqal iblis seytaane di bu bon la biñ ne ko is juddoo li aadama fa sa jooju ilaa bëggoon naa su jooju waaye seytaan dugg ci xel ma ne ko yow li nga yàggee fii li nga yilif fii li nga doon fii ngay sujjootul kii xanaa doo ko def mu bañ fekk fàtte na ne ki ko fal moo ko sant lii ki la fal nag bu la santee mbir danga nga koo war a def maa la fal ne la defal lii def ko mu lànk mo ca la génne waaye seytaane iblis a ko yàqal mm-hmm. moo yàqal iblis seytaane yàqal iblis ci xel mi rek mm-hmm. ci xel mi rek mm-hmm. baaxul na moytu yàq di yàq yi nga ne diggante bu fi commencé te gaawuñ ci rek yàq di waaye kii daal jarul sonn waay waay yuusu da ngay waaru waay kii ni mu bëgg dafa mënta nekk dafa mel ni moom moom télé bi nangam nangam dugg na fi génn yuusu na fekk amoon na xalaat bu rafet xaan ma xel ma ñaaw kay dem ci Kouthia c'est bon yaa ngi ut sa yëf bopp nii la sax parce que nekk ci yëfu jàmbur doo yëf da ngaa war a ut sa yëfi bopp waa kay jàmbaar nga bu génnee nañ ba ko foofu rek ba ko foofu rek day dof dof mhm. yàqkat baaxul yàqkat baaxul ñi ñi ñi kilifa yi yëpp loolu leen yàqal am ko am njëriñ am ko am solo ñu fexe ba ñàkk suñu ko ñàkkee nag buñ demee ba ca kanam la ñuy xam li ñu duñ ko xam ci l'instant yi parce que seytaane yi leen di wër pour masquer kooku di dox dox diggante kooku eh, li kilifa gi bëgg suñ doxee nag diggante mook moom alors yàqu-yàqu am bul ko nangu kilifa day am sago kilifa day tey kilifa day bàyyi ba lépp dal mu dem waxtaan ak njaboot waxtaan ak moom delloo si lu mu lay wàññi yow kenn mosul dégg dàq kenn ah dégguma ko ku ku yusu ko de dégguma ko wax dëgg yàlla te diggante moom mbay gi ni ñu yàgg ñaataat déggoo dara dara dara dara lu ko yusu def ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen noonu la kon nag nañ ko jëli delloo si ko waaye Kouthia nangul yow nga dellu si rek waaw nangul rek bul bañ suñ la jël see demal voilà moo gën macha allah muy kàddu am solo ah. yaakaar naa ne euh, li nga xamante ne tey fekkoon nañ ko ci waxtaan jàpp naa ne mat na euh, Oustaz waaw moom de sama dernier kàddu mooy ñu rafetal rek ku am njaboot da ngay rafetal te moytu nag seytaan yi seytaan yi la ci ñun la ne aouzu mina seytaan yi ku ko dàq rek moom la seytaane rek yaa ngi yàq ci yàq baaxul defar moo gën gis nga mbooloo moo am na koo xam ne yàq rek la fa nekke yàq rek la fa nekke xoolal lu mel xoolal Dubaï seetal Dubaï dafa xew naar yi suñu jigéen ñi xaj di la sëyee bàyyi di la sëyee nit di la sëyee ñii di kabine sa gémmiñ lekk ngeen xaalis xaalis nañ am xaalis rek réew mi métti na waaye yeggul ci ngor yeggagul ci jaay jaay ngoram réew mi métti na waaye fi yeggagul ci ngor jaay ngoram te sëñ Cheikh dafa waxoon ne ñeenti dëkk ngi nii ñeenti yu am quartier ngi nii ñeenti muus Mermoz Ngor Gorée Diamaguène nee na ñeenti ñu ngi ko tuddee quartier waaye ci nit dëgg la nit bu meree war na am xel mhm. muus mhm. ba mer ma jeex du ci feeñ waaw mhm. ne rek ngor baax na waaye goree ko gën gore moom gis nga dafa na xaree dem ndox rek jaloub rek gaar rek bato rek da ngay ci ngay dugg jàmm gën nit lépp lu muy ut jàmm ca gën kon nañu moytu seytaane yi suñu biir mm-hmm. aouzu billahi mina seytaane rajim te fekk moom bu ngand bala nañ ko moytu de mm-hmm. bëri na ko naan man nangam man nangam man fekk moom mooy seytaane ba mm-hmm. mooy yàq kër doom te iblis ma waxaat leen ko seytaane ko yàqal iblis seytaane ko yàqal